sukuri lirabin kaari min kaana saakaara wa artaji binu fi daarayni abkaara sukuri أرتجي منه في دارين أبكارا كتبت شكرا له ما قد رجوت به كوني سعيدا وشاكرا وسكارا وجاءت واتيا في سهري نبي سنادي الأكرم رفيع الوهاب سكر وجاءت واتيا في سهري نبي سنادي على أكرم رافع الوهاب سكر رجوت من عطا لا سكره مالي ولا أفعل يوم عن نيني مغفر رجوت ومحوها زلات جملتها عني وتسخيرها لدهر كفارا إني أقاتبها في البحر مغتربا ولم يزل جلغا هارا وجبارا فجاءتني ربي بالألال هاب لي أن أعود للبرير لي كل من بار التسليم بالكرامة وارفع وزيد نيابة درافع بكرم على نبي سليبي تسليم بالكرامة وارفع وزيد نيابة درافع soo alfadlul asiim kum jox nga neel deefi layam faadilu mooy fadlul amiim turam wa doy na xarnu bi def li nii ñu màggal sëriñ Fallilu sëriñ màggal bàyyu seex muhammadul yaddaali mbàkke mooy doomi samsun wa xamar mbàkke ngu soobe dun ko jar sëriñ moo namp yaari meeni ngor mooy bamba tey ci xarnu bii si diiti baayam lay royaat leerug cosaan nga day royaat ndey jaadi xayru muxsinaat mu donn mbooti xarnu bii sëriñ fàllilu mooy noobulub lislaam ci ñun mbooleem sërif yi ci gën danay useynu wala sen may xaadamam ci xarnu bii sëñ fàllila sëñ màggal maami Seex Moustapha Mbàkke ma wax la ci ay jikkoom lewet woyof ànd ak te nuru na baay ba man na doom mu ëmb kersak waa xarnu bii dem na ba màkkam jullikaay añ na siyaar na ngën gi baay te indiwul alal di nu jaay nawleem amul ci xarnu bii taalifay baaya may woyam moo doonu duusi xam-xamam sëriñ Fallu moo naan ci gi xikamam suram ba day xarnu bii yàlla na am li muy mébét ci ñun te nu am li mébét ci moom yàlla na am sët yu gën a gëm waa waa waa xarnu bii mooy fadlun asimun sirifun farisun fatilun bakken bu soobe la kii mooy jitte mooy wasila lor dem na xeewal yi baawante dootu jee abadan ku sopp sëriñ fallu xeewal war la lor da du la dahila man ada seex fallu fi abadin xayri ila man ada tanew ya xam nanu la loo wax borom nguur gi gaaw ko def ne yow yaay ki jubóog waa ahlu diiwaan yi seen mbooloo ma xam nanu la baytil wilaayati yaa yor fondu mang ba bu wér sirif nga yaa jiite mbooleem ku ne wàlliyu la di bokk julli ci bokki taalibe yi bu ngeen déggee njàng mu am solo mii nga xam ne Cheikh Ahmadul Fadilu doon na ko yëkkati léegi ci xasiiday borom Tuubaa kenn ku ne danga xam ne nekk nañu ci weeru tëdd waaye dëgg mën nañu itam bés bu màgg boo xam ne mooy kazu rajab di bés bi nga xam ne si dañuy fàttaliku jàmbari lislaam si la fàttaliku jàmbari Serigne Touba muy Cheikh Mahamadul Fadilu ibnu Xaadimu Rasul si ndigalal Cheikh Mahamadul Muntaxa ibnu Cheikh Mahamadul Basir xalif général kullu murit yàlla yàggal ko fi te defal ko ak wér barakatu Seexil Xadim àggale ay yéeneem àggale ay naalam barkeb suñu mag bi si ndigalal sëriñ Abou Mbacké ibnu Cheikh Ahmadul Fadilu moom mi toog jotaay bi Cheikh Ahmadul Fadilu walla ñu ngi ñaan yàlla yàggal ko fi defal ko ak ay yéenam barakatu seexal xadim waaye si ndigalal Cheikh Ahmadul Yaddaali yi ibnu Cheikh Ahmadul Fadilu si ndigalal nga xamante ne bii moom la ñu bokkal jotaay bi muy Cheikh Ahmadul Moustapha ibnu Cheikh Ahmadul Yaddaali ibnu Cheikh Ahmadul Fadilu ibnu Xaadim Rasul yitte ji yëpp jenn dong la muy bésub Sëriñ Fàllu ji nga xam ne moom la ñu dëgmal ni kii vingt 28 février bi ñu dëgmal incha allahu rabbi ñu fas yéene nag taxawee ci taxawaay bu am solo waaye ànd ko suñu jëruñ ju tedd ji di Cheikh Mahamadul Moustapha ibnu Cheikh Mahamadul Yaddaali ci ndigal ay kilifaam ñu tënk kàddu yi rek ci leeral ak yaatal ngir bés bu màgg la jëm bés bu tëdd lañu jëm bés boo xam ne lépp njariñ la moom mii nag mu am yéen ay ànd kook bokk jullit yépp ànd kook bokki taalib yëpp loolu moo waral jataay bi fas na nu yéene ci biir ànd geeg bokki taalibe yi ak bokki jullit yi dañ say jiital ñi nga xam ne ñooy kuréel liggéeyal alxuraan bu ñu ne kuréel liggéeyal alxuraan nag képp koo xamante ni bii yaa ngi dund alxuraan di jàng alxuraan ca tur mu ngi ci biir woote boobu noonu moo xam nga nekk ci biir réew mi moo xam nga nekk Afrique moo xam nga nekk bitim réew foo mën a nekk ci àddina sëriñ bi mu ngi lay fàttali bés bi te di la ci woo li ko yëgal bu baax a baax sa kéemtalaay kattan waxuñu sax bàyyi ba bés ba waaye alxuraan kenn ku ne xam na ne Sëñ Fallu dund gépp alxuraan la woon lu waaye man ci alxuraan nga jàng ko def ko adday si Ahmadul Fadilu boo mënta jàng sax daara ja nga jege sëriñ bi mu ngi joxe ndigalal na nga wax ñooña ñu jàngal la alxuraan ñu def ko adday si Ahmadul Fadilu fii ak ba bu ñu àgg sa bés ba ndax lépp ay njëriñ la lépp ay wiyu la ni ko noonu itam ñi nga xam ne ñooy yëngu si xasiida di waa xasiida nga xam ne ñoom itam ak alxuraan def ci ak sotti ak sotti si la rek kenn ku nekk sëriñ bi foo mën a nekk ci biir réew mi moo xam Afrique wala bitim réew foo mën a nekk Cheikh Ahmadul Moustapha ibni Cheikh Ahmadul Yadali mu ngi lay yëgal màggal gi nga xam ne mooy màggalu sëriñ Fallou euh, di la ko fàttali itam ci li mu xasida yi euh, lu man ñu def ko addee Cheikh Ahmadul Fadilu waajale ko bés boobu ni ko itam képp koo xam ne ab julit nga ak foo mën a nekkee ci àddina bi sëriñ bi mu ngi lay fàttali bés bi nga xam ne euh, bésub sëriñ fallu la mu ngi la ci woo itam kemtalaay kàttanam yow mi mooy itam mi ngi la ci woo sa kamtalaay kàttan insha allahu rabbi bés boobu nag sëriñ bi kenn ku ne xam ne ne eh, njabootu Cheikh Ahmadou Fadilou yëpp dañ koy màggal waaye moom mii di Cheikh Ahmadou Moustapha ibn Cheikh Ahmadou Yadali ren mu ngi koy amale Mbacke Bawol Mbacke Bawol nag miin nañu ko booy dugg Touba rek boo passé ah, garage bu bees bi mel kuy dugg ci rond bi boo jëmee Daaru Salaam ci diggante ñaari station yi foofu boo fi taxawee sorewul dara bare bi nga xam ne moom la sëriñ bi fas yéene amale màggal gi ren ngir lan ak yaatal ngir lan ak ak maanaam ku yokk da ngaa wàññi te gis na ne bés bi dox doxin yi nga xam ne moom la ciy dox waxtu nag daa bëgg mu yaatu kon sëriñ baa ngi si woo ñëpp di ko fàttali ñëpp di si woo jullit yëpp di ci woo taalibe yëpp di ci woo ñi nga xam ne ñoom la bokkal sëriñ Touba di si woo ñi nga xam ne ñoom la bokkal maam Maaram di si woo ñi nga xamante ni bii tam ñooy bokki naare mi nga xam ne ñooy darmanko yi fii waaye mën a nekk si Ahmadul Moustapha mu ngi lay woo te jëloo ko fàttali bu baax a baax a baax di fàttali alxuraan ji di fàttali xasiida yi li si man ñu def ko adday si Ahmadul Fadilou kon mbokk yi yégle baa ngoo ko yal na yàlla defal ñëpp jàmm barakatu Seexul Xadim bu ko defee mel ne ne am na ay jàmbaar yoo xam ne itam takk nañu seen laxasaay di ay soxna ànd ak Seex Ahmadul Yadaal yi liggéey bi muy liggéey liggéeyal Sëriñ Fàllu waaye ànd ak sëñ bi ci bés bi nga xam ne moom la dëgmal bu Seex Ahmadul Fadilou te soxna yooyu ñu ngi si jataay bi kenn ku nekk ñoom danañ si jukki ñetti nit kenn ku ne jàllale kàddoom ngir yaatal liggéey bi kon dañuy jox soxna Matimar moom itam mu dikk yégle yaatal liggéey bi ñu doxal insha allahu rabbi auzu billahi mina sheytaani rajim bismillaahi rahmaan rahim ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi di sant sëriñ Fàllu bu baax di santit sëriñ Moodu Mbàkke daani moom mi ñu tàbbal ci liggéeyub sëriñ Fàllu bi ñu koy ziyaar di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi yàggal ko suñu kanam di nuyu tamit suñu mbokk soxna yi nga xamante ni ñoom lan àndal liggéey bi nga xamante ni moo di axlul xuraan liggéeyal sëriñ Touba sëriñ Fàllu muy liggéey boo nga xamante ni yaakaar naa ni yaatu na ci réew mi ñu nekk ak bitim réew kon bu bis bi teewee di bisub sëriñ Fàllu amuñu lu ko gën a rëy ci ñun te it amuñu lu ko gën a màgg ci ñun kon bis bii bu taxawee tey yaakaar naa ni bépp soxna boo nga xamante ni rek yaa ngi laxasaay takk sa ndigg di liggéey sëriñ Touba sëriñ Fàllu war ngaa jóg ngir bis bi kon du ma def rek lu dul di woo suñu mbokku daayira yi nga xamante ni ñooñu wër bàyyiwul benn daayira bépp soxna boo nga xamante ni rek yaa ngi ci dakaar rawatina yëmbal gee nga xamante ni fa la sëñ bi sampal suñu daara ñu yor fa liggéeyub sëriñ Touba sëriñ Fallou ak sëñ Modou Mbacké daani di ko liggéey mu nekk liggéey boo nga xamante ni yaakaar naa ni lu ama am solo la lu lu nu loo nga xamante ni lu nu jariñ la kon duma def lu dul rekk di woo suñu mbokk soxna yi bu bis baa bu kenn solu bu kenn ni damaa ñëw ngir puukarewu ndax alxuraan lan wax kon nañu laxasaayu ñi mën a jàng xasida yi nan ko jàng ñi mën a jàng alxuraan nan ko jàng ñi nga xamante ni mën na noo dem ci liggéey waañ bi nan dem ci liggéey waañ bi ndax bis la boo nga xamante ni jëf jël la kon yaakaar naa ni ñun soxna yi kenn waruñu cee ëppale te it kenn waruñu ci jiitu waaw di ziaraat nag suñu mbokki jëwriñ yi nga xamante ni ñoom lañ fekk si fii tey ci Malika di leen ziar bu baax di wàcce kàddu yi rek bismillaahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonant bi di sant samay ñaari waajur di sant Sëriñ tuubaab bu baax sant boo xam ne am na tàmbali mais xaw mu amul fu mu yem di ko sant ci boole gi ma booleeg Sëñ Fàllu di dellu di santaat yàlla bi ma sëñ Fallou booleeg sëñ moodu Moustapha mu sëñ Yeddaale jërëjëf Mbàkke Malika de dafa mel ni dañ doon nelaw wante yeewu nañu ndax tout tànk yëpp jóg nañ taxaw te li dañu ne sans euh, société bu ci jigéen amul tout tànk amu ci du dem waaye tamit nag diine bu ci tout tànk amul du dem nga jël nag jigéen ñi nga xam ne amuñu jot dugal ñu ci Mbàkke jërëjëf taxawaay bi rafet na torop waa Malika nag yóbbante nañ ma ci yow sagal nga leen ñépp ngi lay gërëm ñu ngi lay ñaanal ñu lay sant ci sa baax ci sa dal ci sa am diine ci sa bëgg ñépp nag ci sa jox cër yow kon Mbàkke ah bëgg yàlla da neex na waaye yàlla bëgg la nag moo dàq te moom nga ñu defal yow yaay bàyyi sa lépp ñëw ci suñu biir toog naa ñu teg leen seen tànk fii dafay leen nii dafay leen naa kon dese loo ñu dara ñun li des mooy ñu ñaanal la gudd fan ak wér ba nga sut sa ay maam fan jërëjëf Mbàkke di sant waa ëxlu alxuraan gi di leen gërëm du ma ne ay tuut tànk ay kilifa ngeen da xasi ay ci ngeen di yëkkati fii dimanche bu jot muy riir ci dëkk bi ñëpp kontaan nañu am na ñoo xam ne sax bokkuñu diine mais dañ ma ne ma man damaa bëggoon ñëw toog ma ne ko ñëwal sëñ Touba ñëpp a ko moom sëñ Fallou ñëpp a ko moom sëñ Fallou mooy Sénégal loolu suñu ko waxee mooy mooy mbokku ñëpp may sant na kër gi ñu toog di sant boroom kër gi bu baax ndax nag ku dund ba ñuy jël xasaati Serigne Touba di ko di ko wax ci sa biir kër gi di ko fi wàcce guddi ak bëccëg ah man de ñee naa leen wax dëgg yàlla di sant sama mbokki jigéen ñi di la wax ne ñu jigéen nag moom du ñu nangoo féete gannaaw mën de départ naa di woo sama mbokk yi nekk Suisse Italie Espagne Amérique bàyyiwu mag kenn ku doon nelaw na nga yeewu fii ay nelaw jeex na fi. ndax sëñ Fallou bu ayee kenn dootul nelaw ndax ñi doon nelaw dañuy dañuy daanu ci ñi ñi yeewu ñoo daanu ci ñu doon nelaw ñu jóg na jomm taxaw kon jërëjëf Mbàkke taxawaay bi rafet na sant naa la man de sant naa la sant boo xam ne xaw ma fu may tàmbalee sama yaay mag la bi ma ko waxee léegi daf ne ma ñaanalal ma sëriñ bi te ngeen gën ko jàpp ndax ku ko jàpp di dem te Mbàkke ku ànd ak yow dina dem ndax de alxuraan rekk nga woote te lan moo fa nekk fii. alxuraan mooy dëgg lii ñuy def yépp ay caaxaan la bëgg sëriñ Touba bëgg sëñ Fallou ñu ne déet nga ñëw nañu kaay leen ñu ànd bokk liggéey bi yow bés bu yàlla sàkk yaa ngi ci suñu biir yaa ñu may fit yaa ñu ñemeloo kon nag Mbàkke jërëjëf jigéen ñi nag ku ci nekk yéen bu ci kenn bu ñu nangu daal góor ñi raw ñu góor ñi sax moom jàmbaar lañu waaye nag ñun man de du ma nangu kenn raw ma nañ leen laxasaay du sant suñu mbokk yi ñëw fii bésu tey bi ngeen xam ne seen kër ngeen ñëw ñu ñëpp benn lañu ñoo bokk yam ci yàlla di woo nag bépp doomu aadama maa ngi leen di woo ci bésu sëñ Fallou bi ndax man sëñ Fallou rek laa am ku ma xam-xam maag sëñ Fallou dafa am lu ñu mën a wax ci kaw waaye am na loo xam ne kenn mënu koo wax ci kaw jot naa ci waxtaan ak sëñ bi tuuti damay bàyyi noonu ndax su ma continuer di wax sama xol day fees ma yemale waxtaan bi fii di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal jàmm ak salaam di ñaan suñu weer wii ah ñun ñoo ko moom. du ma ne waa sëñ Fall dama naa murit yëpp ndax sëñ Fall mooy Sénégal kon weer wi ku ci mën a jaamu yàlla na nga ko ci def loo mën a yëkkati ay àddiya dee ko joxe xott ci mbubb solal ci nit ci bés bi sax dafa baax ci weer wi kon naa leen di ñaanal jàmm ak salaam di jégalu ci wax ji bu dëngee ngeen xam ne rek ci man la ndax ni may waxee nii dama émotionnel torop donc maa ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla bàyyi ñu fa bës ba te teg ñu ci yoonu jàmm te ñu rafetal ko te ñu yiwal ko nañ xool sëriñ bi ni mu mel mënuñoo mel ni yow de Mbàkke waaye dañuy jéem rek dañuy jàppale rek dañuy teg ci yoon rek te dañuy dimbali rek Mbàkke ba fu ñu naree jàdd rek nga jubbante wàññi jërëjëf Balla sa yàgg fi loolu te wér di siyaare sëñ Muntaxa nag mënta ñàkk ndax moom lépp moom la di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi mu yeggale naalam yépp muy njëriñu murit yi du njëriñu bépp doomu aadama jërë ngeen jëf ngeen baal ma àq alhamdulilahi rabbil alamin barke borom tuuba barke borom tuuba barke borom tuuba barke sëñ Fallou maa ngi leen di sant di leen gërëm ah man sëñ bi moom daf maa bëggal boppam daf maa bëggal boppam lépp lu ma am suba ba jant so dina yónnee ci man loolu kontaan naa ci dégg nga de man nag làkkat la dégguma olof noonu dégg nga wante par ñun taalibe sëñ Tuuba lañu sam papa taalibe sëñ Tuuba la ñun ñii taalibe sëñ Tuuba lañu dégg nga amuñu lu dul sëñ Tuuba amuñu lu dul sëñ Fàllu sama papa tuddee na sëñ Fallou sax ma nga Europe dégg nga mbaadi mandinkoolu kontoon na nga siyaaree soto Touba sëñ Fallou la siyaare fe wo fenni mandinkoo muuti mbe killa je mbe killa je ni be kañanta jeele ni bee kaañanta jeele sëñ eh, sëñ nga ndookuwaaye nga ndookuwaaye parce que moo le mu mu yaalan ko hadamadiŋo ñante dookulayen hadamadiŋo ñante dookulayen nga ala tentu ala nga kiila tentu ala ha ah. mbal tentula mbal jeylante mbadi manden kolonte maymuna fatintele ɓe diyamu laali sen fallula maggal o siita few wo feŋ ni maari ɓe jata kereyala e sima ɓeji ala ye so jata kereyala ala hen so simayala fonnan ɓe ɗo kuwo mun naye ay ke ñaato hmm. rasulu horomo kamala mm. sëñ Fàllu xor moo ko mala sëñ Tuubaa xor moo ko mala bismillaahi rahmaani rahiim wasarra maa fi borom Tuubaa mbokki jullit yi mbokki yi ñu ngi leen di nuyu bu baax ku si nekk duró ak santam te di ziar ñëpp te di ñaanal bu baax Cheikh Mor Mountakha Mbacké suñu borom tabaaraka taala yàggal ko fi ba lépp lim naa liggéeyal borom Tuubaa mu yàggale ko te ànd ak taalibe yëpp di ko ñaanal it Cheikh Abo Mbacke Baraka di ko ñaanal suñu borom taala la yàggal ko fi ba lépp lim naa liggéeyal Sëriñ mu yàggale ko dama ànd ko taalibe yi di ñaanal bu a baax Sëriñ Abdou Modou Mbenda moom it suñu borom taala la yàggal ko fi ba lépp lim naa liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall suñu borom taala la kattanal ko ba mu yàggale ñu ngi nuyu bu baax a baax suñu sëriñ suñu wasila suñu xarit Cheikh Mouhamadou Moussa Mbacke di ko nuyu di ko ziar di ko ñaanal bu baax a baax suñu borom taala la yàggal ko fi ba lépp lim naa liggéeyal Sëriñ Tuubaa ñu ànd ko ak taalibe yëpp te fekke ko ci barkeb xasida yi gannaaw loolu rek dañuy woote woote ba nga xamante ne bi dañ koy woo ñëpp rek képp kuy wuyoo ashadu an laa ilaaha illallaah wahdahu laa shariika lahu wa ashadu anna muhammadan rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam di woote lu mel ni màggalu kasu rajab bi mu mel ni màggal gi du màggalu murit kese màggalu ñëpp la nag kat Sëñ Fallu Sëñ Fallu ñëpp la boo xoolee da nga naan ñi ñi nekkul si yoon si ñoo gën a bëgg Sëñ Fallu kon Sëñ Fallu Sëñ Fallu ñëpp la kon ñu ngi siy woo ñëpp rawatina nag waa ahlu xasida ñu ngi leen di woo ci bis bi ndax kat bis bi bisu sant la bisu delloo njukkat la kon kat te sëriñ bi kat képp koy liggéeyal ku nekk ci alxuraan ak xasida nga koy defee hmm. ñun nag ñu ngi ci woo ñëpp képp ka nga xamante ne bi di nga yor jukki yi di jàng xasida ñu ngi lay woo ci bis bi ñu yendu koo sant borom Tuubaa di woo nag ñi nga xamante ne bi ñoo leen bokkal sëriñ bi hmm. ñoo sukk jébbalu sëriñ bi hmm. ñu ngi leen di woo ci bis bi bis bi di leen xamal ne it bis bi kat képp ku ñëw dañu see jàppale si rek waaye bis bi ñun ñooy ñun ñun ñooy garab gi képp ku ñu si des ay bànqaas lañ ci rek waaye ñun ñooy dat dattu garab bi kon kenn waruñu see gën a man kenn waruñu see gën a farlu kenn kenn waruñu see gën a pëstee fu kon ñu ngi leen ci woo ñoom ñëpp rek ñi ñi bawoo ko njaarim ba Thiès bu fu waay nekk rek wan wan Ndakaaru gii Malika fépp fu waay nekk rek ñu ngi lay woo di la fàttaliwaat di la soññaat bés bi di la xamal ne bés bi kat ñun ñu si war a ñoo si war a jiitu ñoo si war a mujj waruñu see yàqamti dara gan ñi bu ñëwee ñun ñoo leen war a dalal ñun ñoo leen war a ñoo leen war a tatagal ba ba nga xamante ni bi ba ba ba fay duñ gis leen lu leen metti kon ñun ñi nga xamante ne ñoo sukk jébul sëriñ bi ñu ngi woo ñëpp di fàttaliwaat ñëpp bés bi muy le 28 euh, février bii ñu nekk nii ñun taalibe yi nag ku nekk na xam ne fii ne nii le 25 rek baax na ci moom mu daal di màggali ngir la fay la fay la fay la fay la fay la fay moom dalal gan ñeeg la defar lépp ñun la war kon ñu ngi leen koy fàttali di ñaanal baax a baax suñu Maodo Moussa mii nii suñu borom taala yàggal ko fi ndax yàggam fi kat suñu njëriñ la ñun ñëpp ndax gone yu gone gone yu war na jublu safaan mooy dugg leen jublu leen ci yàlla loolu kenn xamul lu mu doon kon ñu ngi koy ñaanal mbàkke yàlla la saa boroom lafal si cat si barkeb xasida yi nga mucc ni mbaa mucc si si barkeb xasida yi ñu ñu ngi tubaat ñëpp ñëpp jigéen ñi ñu ngi leen koy fàttali soxna Xadi Kay rek moom it ñoom ñëpp ku si a soññ ñu soññ ko si ñoom aale ngoom ñi nekk njaareem ak ñu ngi leen koy fàttali nakat bis bi suñ bisu bopp bisu kenn ñun ñoo ñun ñun ñun si ñoom ñoomam bis bi mm. bu nangu kenn gën ñu see farlu mm. kon ñu ngi tubaat ci kàddu yi nga xamante ne bi ñu ngi yëkkati si ginnaaw sëriñ bi di doon kàddu yu rek waaye jëmm ji sax ma teew ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi alkarimi dilminan ala ishtigali bi furudi wa sunan shakartuhu li annahu qad saaqani ma aaqani wa qaadani ilayhi mhm. min baadi ma azaba wa jarani fihi ila alulumi walfawdi walamali bilmaalumi summa alsalaatu bisalaamin tabia ala allazi qasdiya an attabia ala allazi man bi muraadihi iqtida fi sirri wal jahri yakunu muqtada maa ngi leen di nuyu bu baax ci nuyoo bu sell bi muy di nuyoo islaam muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu di sant Sëriñ Tuuba moom mi nga xam ne moo ñu nàmpatal ci géeju bëgg Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di waaj bis bu rëy bis bu màgg di bisub taalibab Cheikh Mouhamad si Serigne Touba muy alxaaji Mouhamad Fadel di nekk ci weeru sell weer woo xam ne istuwaaru islaam da ca sax dàkk kenn dootu ko jeex muy shahru shahru rajab di weer woo xam ne jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi bëggutoon sax ku ci yëkkati ngàndaay ndax ormal weer wi di weeru rajab ñu koy wax al ishraawu wal mi'raaj am na nag lu ca xewoon xew-xew bu yéeme boo xam ne xewoon na ci weer wi weer wi de ci la jaamu yàlla toogoon xëy ne dem naa baytul muqaddas jóge baytul muqaddas dem ci yàlla suñu borom subhaanahu wa mi ngi mel ni ma ne ci guddi dem naa Amérique wàññiku waaye bi may dem Amérique di wàññiku dama dox ak sama ñaari tànk booba ndax ndax am na ay murid yu fa nekkoon ma ne saxaaba yépp ñoom ay murid lañu woon keroog ba Moustapha ne dem naa baytul muqaddas ci guddi gi waaye yem ca dama jóge baytul muqaddas dem ci yàlla sama ba keroog mm, réyoon na keroog tiisoon na keroog metti woon na ana ana ñan ñoo gëmoon Moustapha tamit dëgg ci ñoom gars yi ne leen nañ dem te dofam ba abo abo abo yi ñëpp dégg ngeen ko sëñ Tuubaa ngi koy joobe naan ko abo bikkirin si diix zul zitqi wala fa rafiqun nabiyun Moustapha gaara am baw ñëm ci abo bakkirin ne ko sa waa de waxati na ñu bëri génn ci islaam sa waa waxati na nee dem na baytul muqaddas wëlbati dem dem ci sa sa sa dem sa dem sa sa borom subhaanahu wa taala mm-hmm. Abu Bakri ne leen xawma lu mu wax waaye lu mu wax dëgg la moom Moustapha sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. kooku mooy Abu Bakrin Siddiq murit murit murit bu dëgg woon ci aji bëggam ji mu bëggoon mooy Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ku ne xam na ni kenn ku nekk bi ngay jox bi ngay jébbalu ci Moustapha ñenn ñi dañ koo jox seen alal dañoo xaaj seen alal ju jox ko ñenn ñi dañ ko ñenn ñi dañoo jël tuuti jox ko am lañu dunde waaye Abubakarin dafa def ni Cheikhul Xadim jumlatu maali wa midaadi wal qalam hadiyatun lil Moustapha baabi niam Sëñ Tuubaa nee na sama alal sama njaboot sama xalima sama daay yépp jël naa ko jox ko addiye Moustapha sallallahu alayhi wa sallam Abubakarin noonu la defoon ci diggante ak Moustapha sallallahu alayhi wa sallam mm. comme bis boobu day bisu bisu feet naka jekk ci islaam mm. am nag ku ci judd. mooy Cheikh Mahamadul Fadil loolu du azhar. Mm. bis boo xam ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam yàlla dafa gën ne ko wan najmi iza hawa maa dalla saahibukum maa gawa wa maa yantiqu in huwa illa waxyu yuuxee mooy giñ naa ci biddiw bi ne di leen wax ni yonente yonente bii di Mustafa lu mu lu mu leen wax man maa ko maa ko maa ko jox mm. maa dalla saahibukum seen àndandoo bii di Moustapha dama leen di xamal ne nekkul ku ku nekkul kuréer lu mu wax dëgg la Moustapha sallallahu alayhi ilaa abdihi fa awxee ilaa abdihi ma awxee la ma ko wax yu maag ko wax yu mu jox mu jox leen ko kon koo kookoy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa am rapport ak Cheikh Mahamadul Fadil da doon naar ba di wax ni dem naa Touba gis fa koo xam ni kanamam gi dafa mel ni Moustapha sallallahu alayhi wa sallam kan la doon wax Cheikh Mahamadul Fadil bu Moussa toog ci digg mboolam ba gaññ gaññam googu hmm. daanaka da ngay jàpp ne Moustapha toog sallallahu alayhi wa loolu sëñ Tuubaa ko tawféexu sëñ Tuubaa la gum def ci moom hmm. kon di bis bu rëy rëy rëy hmm. bis boo xam ne moom ci boppam daan wax naan yonente bi dana lay mën a cëpp Cheikh Mamadou Fadil daan na ko wax yonente bi ba mu demee ca ba mu demee ci yàlla yàlla da ko jox julli yi ñuy julli julli juróom la ko jox àddina sépp képp kuy jullit gëm Seydina Muhammad nekk ca loolu mm. bi loolu amee Cheikh Mouhamadul Fadil ñëw nag tabax jumaa joo xam ni mu ëpp doole ci Afrique sowu jant mm. keroog ba Cheikh ma keroog ba leen koy Sëñ Tuubaa sant mm. dana leen malaayika yi ñëw nañ fi sàkku si ma ko ci làmmiñum Sëñ Fàllu ngeen koy dégg ci kaset yi jinne yi ñëw sàkku sàkkuma defal jumaa ju jumaa ju jumaa ju rëy ca Touba Sëñ Touba ne ko dama am ak njaboot faw ñoom ñoo ma koy liggéeyal ne ko Cheikh Mahmoudul Fadil ni bi leen Sëñ Touba woowee ñoom ba ñëw Sëñ Fall neen da ko woowaat ne ko yow moom ku ñëw na la ci fekk ku dem na la ci bàyyi kon loolu ab cër la damay faral di wax lu bari ni Sëñ Fallu ba bokkutoon ak Sëñ Touba boo ko dàqee day demaat ci moom boo ko wóolu Sëñ Tuubaa rek boo ko dàqee mu delluwaat ci moom Sëñ Tuubaa bëggoon ko suñ Tuubaa bëggoon Sëñ Fallu lool Sëñ Tuubaa dana wax naan bis dana ñëw lu nekk ci man dinaa ko def Cheikh Mouhamadul Fadil bu ci xajut ma xaj xajal ko ci Sëñ Cerno Gelo nga li may wax mën ngeen mën ngeen mën na koo témoin am na bis Sëñ Fallu feebar mu mu dem di ko seeti ne ko Mbàkke dem maa ngi lay masaw bu baax ci sa tawat gi sëñ Fall ne ko waa ji dara jotu ma sëñ Tuubaa xaj-xajal ci man xaju ci mu koy xaj-xajal loolu rek ma moo jotoon loolu nag li koy fi dinaa leen ko leeral ci téere bu sëñ Tuubaa bind ñu koy wax saadatu tullaab sëñ Tuubaa leeral na ci ñaari nit yoo xam ni junduña ñetti nit boog laay wax junduña seeni mbir te dikk guñ ci jamono te loolu texte la boo xam ne sëñ Tuubaa ko bind boppam dafa wax ni nahu abi rawdatuhu munawwara wa nahnu ummi haaluha mustahira daa wax ne sama bàmmeelu ba bàyyi Mamoor Anta dafa leer naññ waaye sama mbiru yaay soxna jaaratullaahi Mariama Buso dana siiw ba àddina sépp teg seen bët ndax loolu amul tey te bi mu koy wax soxna jaara kenn xamu ko te loolu da doon bind grammaire bu xarab di di joxe exemple ñaari ñaari ñaari ñaari al mubtada daan ne wa ñu ne ko ha mu ne xa wa naxnu ummi mu ne sama yaay ñu ne ko ha mu ne xaaluha ay mbiram ñu ne ko ha mustahiratun aji siiw la mooy soxna jaaratullaahi ba ca des mu demaat ni katuftu baytallaahi jalla ca ca xaafiya wa zurtu wa zurtu nabiya wa zurtu rawdata nabiya maashiya mu ne sëñ Tuubaa moo ne wër naa néegub yàlla bi mooy néegub yàlla ba ci ba kaabatu al musharrafa ca màkkatul mukarrama waaye bi ma koy wër damaa damaa xandaañu mu ne it siyaare naa barabu yonente bi sallallahu alayhi wa waaye bi ma koy bi ma koy siyaare damaa dox ak sama ñaari tànk te ku ne xam na ne sëñ Tuubaa demul Makka kooku mooy kan demul Makka ndax doon wax naan xafaaru lirvir sunu bi waf ku kan kabal yi bi man alayya tark bi man bi man alayya li tarki dawruhu jajaaru yàlla maa ngi lay jéggalu sa bàkkaar bu rëy bi nga xam ne di def naa ko ci ñàkk dem siyaare ji Moustapha sallallahu alayhi wa ndax waxoon na ab naar ne ko bu nee damaa bëgg ñu ànd dem siyaara ji Moustapha naar ba kontaan lool mu ne ko li ci war lépp man maa koy def naar ba kontaan lool bëgg lool avant naar ba di ñëw ñu ne ko sa sëriñ ba de jël nañ ko yóbbu ko am na sëñ bi mujj dem mu ne nag ñàkk googu ñàkk dem googu ma dem siyaara ji Moustapha ci hmm. gàcce la ci man ku toll ne Cheikhul Khadim ñu ne dem si demu siyaara ji Moustapha gàcce la ci man woofu ko kan xabal yi kon yàlla xobbil sama jëng yi jëng yi ma dem dajji ko loolu mi ngi ko dajji ci Cheikh Mouhamadul moo tax suñu tubaab di wax naan kazu rajab bin na ma suñ nag jugee ca Touba daan ne day dem siyaara ji yonante bi sallallahu alayhi wa sallam defal ko addiyee doon junj ca saada tullaab dalay leer ni wax ne suñ Fallu mbiram daa wax ne xasatu ziyaarata nabil karim bila daadin an sayxil xadim maa ngi dem siyaara ji Moustapha sallallahu alayhi wa waaye amu benn yóbbul bu du sëñ Tuuba loolu dafa leer naññ damay bëgg ndaw ñi boo diggee ma koy waxtaanee du ma ko faral sax di waxtaan ñu bëri dañ ma ciy wax di ma woo ci ay tele ak fu ne damay waxtaanee Cheikh Amadou Fadilou du ma ci bëgg di waxtaan ndax fi mu egg ci sama xol li ma koy waxee mooy efficacité efficacité ndaw ñi war nañ koo war nañ koo jàng ci moom bi muy tabax jumaa ji xaalis bi ni la ko daan tege ci peggam muy sëq tubaab bi ñëw mu compter boppam jox loolu mooy efficacité bi bi Cheikh Mamadou Fadel amee woon efficacité boobu nag jural na ko téere bi sëñ Tuubaa bind ñu koy woowee matlabu alfawzayni sëñ Tuubaa li mu bëgg ci Tuubaa da ko ci bind teg ne lii laa bëgg mooy projet bi nga xam ni moom la bëgg Tuubaa moom Mamadou Fadel la ëpp ca projet ba moo ko moo ko def damay njëkkee mooy mooy màggal gi mu woote Touba suñ Touba juñu na ko xulu man xadama aw zaara fa najjihi waxfir aw zaara mu ne wa kullu man ahabani aw maala illa yafar zuqu hudan aw la aw maala wa kullu man satamani aw laama fa hablahu tawbata wastislaama dafa ñaan yow yàlla maa ngi lay ñaan képp koo xam ne dikk na sama dëkk bii Touba yow yàlla fa najjihi na ko jéggal te nga muccal ko te nga ji tàggale ko ak ba bàkkaar mm. mu ne it képp koo xam ne ñëw na ci sama dëkk bi na ko defal ak tuub gu mat sëkk mm. suñu Fallu nag day mel ni dafa dàkk bëgg suñ Tuubaa gi tax mu wote màggal gi Tuubaa mm. ndax ku ku dem Tuubaa rek wa xajjatan li man bi doon fir irtada mm-hmm. wa xujjatan ala muxaalif na jaaj xada mm-hmm. suñ Tuubaa ñaanoon na ne ku ñëw Tuubaa boo amul loo aje amoo xaalis boo ko defee boo demee tubaa yàlla na ko am mm-hmm. kon loolu la ko yàlla defal tax Cheikh Mamadou Fadil na xam bëgg-bëggu Sëñ Tuubaa boobu tax mu jël màggal gi woote ko woote ko Touba bi mu wootee màggal gi Touba la ñuy soog di xam lan mooy valeur Touba loolu efficacité la mooy bu ñu wootee màggal gi ci la murid di tàmbalee xam ne Sëñ Tuubaa am na ab dëkk bi mu wootee màggal gi ci la murid bu nekk bëgg kër Touba dëkk ba am développement. bi mu wootee ma màggal gi ci la commerçant yi di dem di jënd ndakaaroog fu ne Europe ay conteneur di ko indi biir Touba mooy mooy ñaan gi Sëñ Touba ni waxoon ne waxfir li kulli man bihaa sakkanaa wali lazi lahaa li xayri rakkinaa yàlla maa ngi lay ñaan nga jéggal ñi nga xam ne ñoo dëkkee sama dëkk bi ak jéggalaale képp koo xam ni mu ngi jël ay yiwam ay xéewalam di ko indi ci di indi ci dëkk bi loolu Cheikh Mamadou Fadil moo moo ko def ba ca des mooy bi mu defaree jumaa ji Afrique jant gépp jumaay Tuubaa gën fee rëy ba mu egg mu ubbi ko dafa di dox ay jéego yu néew marché Ocass def marché Ocass Sëñ Tuubaa waxoon na ni euh, wa kathiran xayraati xësal xësal baladi warisqahu wal takfihi an nakadi suñu borom maa ngi lay ñaan xéewal nga bari ko sama dëkk bi mu tabax marché Ocass tudde ko al Ocass ga ne ga ca Makkatul Mukarram waaye nag da dàkk ci bëggug sëñ Touba gi mooy sëñ Touba nga xam ne ku defar jumaa sëñ Touba dafa nag waxul ne dañuy defar jumaa rek jumaa ji rëy rek ñëpp di ko xool waaye dafa bëgg jumaa ji am mbooloo muy jullee ci biir jumaa ji sëñ Fallou daan ne sëñ Touba daan ne wal tusbitan fiihi jamaata tuqim as-salawaatil xamsa daban yaa hakim yàlla maa ngi lay ñaan nga defal ma mbooloo moo xam ne ñooy jullee ci biir jumaa ji mm-hmm. waaye Cheikh Mouhamadoul ngir ngir bëgg am loolu tax na mu dem créer am marché boo xam ne murid yi danañ ci mën a jariñu man ci am xéewal waaye di mën di feesal jumaa ji di mën di julli waxtu si waxtu suñu bopp suñu suñu borom bi ku ne xam ne Sëñ Tuubaa ñaanoon na ndox ba mas ni sàllim minal fujaari wab nun alal ahli bi ma injaari yàlla nag ma def ndox muy daw borom xam ne nag ñun saa ñaan ay dex dana am tubaab yi waaye man sama dégg nu bopp lay wax boo xam man dégg naa ko ko mm. mooy bu njëkk Tuubaa daa daa amoon ay teen mm. nga xam ne dangay ngay jukki mm. ndox mi da daan dégg nga xam ne da ngay jukki dem dem daal di yóbbu sam ndox léegi nag ay forage lañu am forage ndox muy daw la ndax pompe yi da ko yëkkati mu jaar ci tiwo yi di xelwaat ci ci ci robinet yi kon man noonu laa dégg ni la la la fa Sëñ Tuubaa bëggoon Cheikh Mamadou Fadel moo ko def bi mu indee forage bi Touba forage ba mu fa njëkk indi mi ngi ko def daaru daarum daarum marnaan la ko def gone yu Touba yi sax ci jamono yooyu daan wax naan daarum marnaan ko fa dem soo maree naan soo marut naan ndox maa ngay wala ngar loolu yàgg gis na ko dégg bi mu naan euh, li nuuri wax fi xuruuji min min min dulam li nuuri wax fi xanu ku la man ku la man dalam suñu borom maa ngi lay ñaan nga génne lëndëm ci dëkk bi waaye li nuuri wakfi anhu kulla man zalam nga indi dëkk bi leer goo xam ne moo leen di fegal bépp lëndëm loolu moom moo njëkk jël courant Thiès xuma ci Canaba indi ko biir Touba liggéeyal sëñ Touba tëli bi moo ko njëkk a jël jël ab tëli dugal ko biir Touba loolu mooy efficacité mooy nit ki danga war a fexe yéen rawatina ni yéen ndaw ñi ba bala ngeen génn àddina bis bi ngeen bi ñu naan diw faatu na àdduna si yëpp xam ne diw faatu na. loolu mooy ak njàmbar. nit ki boo nekkee sa réew da ngay xam sa réew xam sa réew mooy lan damay wax ni patriote ku koy jàngale. Hmm. exemple say exemple da ko war a jële ci biir yoonu murid ndax boo ne patriot sama caay ji xam nga ni patriote doo nga tax ma koy sol samay maam ñoo ko daan sol. Hmm. murid gi lu ci bëri ay laafa la sol laafa yi ñuy sol. Hmm. patriote moo tax ñu koy sol ci biir réew mi lañ koy liggéeyee rarement ngay gis ñu sol ay jàllaabi suñu dëkk bi suñu dëkk lañ am am suñu jumaa joo xam ni patriote jumaa ji rek pas patriote la ndax ñun benn financement am naar fi financé wuñu ñoo ko tabaxal suñu bopp ci suñu xaalis bopp loolu mënut a weesu patriote patriote mënut a weesu kenn ku ci nekk dëgg la naam baax na sëñ Tuubaa wax na ko sa waa aw nitamaa ilal jinaani aw nitamaa li Ahmad Tijaani tariixa yëpp a baax waaye patriote bi mënut nekk benn nit ñuul ku am jom am fulla di jaamu yàlla di jaamu yàlla ba suñu borom jox ko cër boo xam ni daa jël cër bi jox ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ca Mauritanie suñu Tuubaa ko bindal boppam daan na yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñëw ci man ci lu dul ay nelaw jox ma wérdu wi ne ma wérdul màqus bi maa la ko si yàlla moo la ko jox yow eh, Serigne Touba Xadim Rasul loolu mënut a weesu patriote en tant ñuul maanaam maanaam euh, falay sa yu jibu sawaadul jismi safaatal wa fataawa su afahmi bu leen gis sama der bu ñuul bi ngeen jàpp ne damaa ñàkk ak dese kookoy Cheikhul Xadim loolu war nañ cee roy bu baax ñëpp war nañ cee roy Cheikh Mahamadul Fadil dama leen di wax ni exemple la ci àddina bépp daan wax naan may Sénégal da ko wax lan wax naan may Sénégal te loolu muy lu dëgg wax ko wax ko ñëpp teg ci bët doomi sëñ Tuubaa yëpp toog mu ne leen may sëñ Tuubaa soo ngeen ma noppee gis ngeen gis doomi sëñ Tuubaa loolu danga ko wax kon loolu ay ay jikko la yoo xam ne ñun ñëpp mënees nañ cee roy mënees nañ cee jariñu ëllëg li ñu bëgg mënees nañ ko ci am waaw daan wax naan ku euh, ne xam ne bi muy eggale jumaa ji bëggoon sëñ Tuubaa tax lépp loo xam ni bi muy génn àddina ba bi muy génn àddina jigéen gu nekk góor gu nekk vingt mille nga ko dond jigéen gu nekk dix neuf mille keroog bi ñu ko génnee ca biir néegam ba néegu ñaxam ba di ko dugg yóbbu ca bàmmeel ba ci néegu ñax lañ ko génnee yóbbu ci bàmmeel ba te keroog tabax na jumaa joo xam ne ay milliards la ci def ay million ci jamono booba xam nga ne loolu lu rëy la te mu defal ko Sëñ Tuubaa kon moom bëggutoon alal. bëggutoon daraja bëggutoon dara lu muy jëmmi Cheikhul Khadim man moom laa ko bëggee man wax ni man bëgg Cheikh Mouhamadul Fadil doy na ma wëlif may jàll faneen loolu loolu loolu mooy mooy sama pas gis ni kii amul dara benn yitte daa waxaan bi salgub laa ci salgub sa salgub mooy ñax gi nekk ci àll bi nga xam ne ngelaw li bu ñëwee nekkoon nii mu ne nii bu ko rombaatee ne ko nii mu ne nii nee na man sëñ Tuubaa umu ci yàq umu ci defar mooy fu sëñ Tuubaa jëm rek falaa jëm mm-hmm. man Cheikh Mamadou Fa mm-hmm. kon loolu ñëpp war nañoo gis ana kan mooy liggéeyal sëñ Tuubaa ci moment bu jafe boobu mm-hmm. nga xam ni Cheikh sëñ Modou bu sa jàng moom moom la ñu ma tuddee moo ko nax ne ko sa kër gi nga xam ne sa néeg yëpp ay sàkket la li ko wër lépp ay sàkket la dañuy dimbali nga wërale ko am miir ndax lu mu bon bon sax mu génne taaru jumaa ji waaye sa kër gi fi ne moo ñaawal jumaa ji tax mu mu miir ak kër gi waaye ay néegam moom néegu ñax la woon ba ne fi génne kon kooku bàyyilul ak njabootam dara mm-hmm. lu muy kenn la leen bàyyiloon yàlla suñu borom mi nga xam ne mu leen bind kon nag loolu ay royukaay la kooku buñ eggee ci bisam mm-hmm. war nañoo xam ni murid yépp amel nañ ko njukkeel mm-hmm. dañuy faral di wax ne arxuraan ji ñu liggéeyal di ci sonn li ci def amul kenn ku ci def ñeent fukki kaamil ak nangam bind na ko sëñ Tuubaa daan wax naan daan wax naan damaa toog ba xooge suñu Fall daan ko wax damaa toog ba xooge fu mu mës a jullee gée gée nit ñi ñëw na am mu am rek lañ xam waaye suñu Fall mës a jullee gée eh, fajar fajar fa la koy fekk fu mu mës a jullee gée rek fajar fa koy fekk bëkk néeg yi ko gën a jege nee nañ ci ak mu jëm diir bu gàtt génn nañ sept der yoo xam ni der bu ci nekk da caa julli ba ba jëbi ca ak oom ak loxo yi ana mooy kan xam-xam mu rawoon ci ñépp am na suñu mbokk mu ñëwoon ci moom ne ko dama dégg naxu ngir di ko di ko challenge ci ah ci ci xam-xam mu ne ko déedéet waroo wax loolu dangaa wax damaa dégg wa ndax boo ne damaa dégg la nga dégg mooy faal bi waaye naxwa mooy mafoonu bi mi nga xam ne xoolal ko xam-xamam bu rëy boobu amoon na it ëppal boo xam ne dafa ñëw ci moom ci xam-xamam bu rëy lay wax ni ki jàngal Sëñ Tuubaa moo ko jàngal hmm. maam Cerno jàngal na ko sëñ da Abdourahmaan Lo jàngal na ko waaye mu demaat ci moom maam moom Mor Jaara mi nga xam ne hmm. Sëñ Tuubaa bu mu ay téeréem ay kiyam moom la ko yóbbul Mamour Diallo feccaleel ko xam-xamam mu wëlbati ko yemu ci fekk Sëñ Tuubaa ca Mauritanie kooku askan yëpp war nañoo roy ci moom doyatut am na pël boo xam ne da ko romb ne ko ja daane ko jam ñaal de ne ko jam ñaal de pël bi mi ngi tuddoon ngaydu la tuddoon ne ko jam ñaal de suñu fàllu ne ko laa tabtadi salaamaka jam ñaal de nga ànd na ko mën a karun yaa ngaydu ne ko yow ngay bul di tàmbalee sa nuyoo ci jam ñaal de li ànd na ko ngir naka moom jam ñaal de mun a karul nii sib la del wax asalaamaaleykum kooku mu amoon xam-xam te loolu ñëpp war nañ ko cee roy damay wax ni moom mooy sël koo xam ni mënee su koo fi mënee su koo féetale fenn mënoon na suñ suñu fàllu ci arxuraan mënoon na suñu fàllu ci toole mënoon na suñu fàllu islam mënoon su suñu fàllu suñu damay wax ni mooy islaam mm-hmm. man noonu laa koy woowee mm-hmm. mooy sël koo xam ne taxaw na nekk xalifa général des mourides man yàlla defal na ma tawfeexu ci kii ba di déglu naa ko. Hmm. naafil la am déglu naa ko. Hmm. taxaw mbooloo mépp taxaw muy naafil la weeru koor te nekk xalifa sëñ Tuubaa ak alxuraan ni mu ci jafee ak alxuraan ni mu difficile hmm. ak gone yi koy mokkal te am jot. te yow nga nekk mag sam xel di fàtte. nga ñemee taxaw ci digg ay ay nit di fa naafil alxuraan xam nga loolu yombut loolu jàmbaar dëgg moo koy def. loolu ku nekk war na cee war na war na cee xoolaat ba noppi amoon xam-xam boo xam ni bu musaana ci ak mu jëm laa nga xam ne boobu mi ngi bëgg a génn àddina daanaka soriwu ko mbooloo mépp ñu ñëw di siyaare ñi ñi ñiy laaj di laaj mu leen di jox xaalis ñi joxe di joxe waaye bu ñuy joxee joxe daan nañ dem ñii laaj ñëw ñii laaj buñ ñëwee mu mu jox leen waaye nag yow yemu ca am mbuso bi dañoo yàgg bëgg xam-xam mm-hmm. go gone mbuso bi nekk ci penc ma ñoom sëñ Fall leen ubbiloon seen bunt ubbil bépp gone xeebutoon gone xeebutoon mag mm-hmm. gone yi bu ñu ñëwee laaj ay masala am na gone yoo xam ne masala xalil lañ ñu laaj ay ay mbusoo bi mm-hmm. sama mbokk mbusoo maa ngi leen tooñ bëgg ci yow lañ def waaye ñuy laaj am masala xam-xam ñëw fekk Cheikh Amadou Fadel mbooloo mu wër ko nekk xale bi général de Mouride ñëpp wër ko ñu ne ko Mbàkke dañuy laaj am masala ci xalil sëñ Fallou keroog da na taral yajax ba ba taralal leen saraaba gone yi dem bëgg xam ne xam ne tey am nañ xalifa boo xam ne boo ko laajee xaalis mu jox la boo ko laajee ab masala mu jox la boo bëggee mu dimbali la loolu yooyu yombutoon am baatin di dimbali nit ñi am xam-xam te nangu koo joxe loolu yombut ab sëriñ moom yenn saa yi li ma wax bu baax a baax mën naa am xam-xam lool waaye day nay lool wala mu ñàkk xam-xam loolu tabe lool waaye sëriñ bu booleel yëpp yombut mm-hmm. kooku Cheikh Mamadou Fadil lay lañ ko lañ ko gisoo kon loolu ak cër la bu rëy boo xam ne mm-hmm. ñun ñëpp war nañ cee jàng war nañ koo xam euh, dama koy faral di tool yi nga xam ne daan na ko bay yu bëree bëri mm-hmm. xam ne moom suñ ci wàcc rek loon dàkk yi bi bi bi eggee dana tool yi yëpp bàyyi naa nga xam ne moom am naa jamono bi bi taalibe yi bu ñu daan bay ba indi ko ba noppi da dox naan lu ma ci nar a lekk yàlla na mel ne xorom ci man suñ tubaab suñu fal daan ko lu ma ci nar a dugal sama biir yàlla na mel ne xorom ci man bu taalibee tàmbalee mu tàmbali ak kaamil gis nga léegi suñ tubaab junj nga xam ne moom loolu Cheikh Mamadou Fadil lay lay junj ci mëlewut fosé ni waxfir li kulli waxfir li man banaw binaa rafi'a waxfir li man amarahum bi bihi jamia dana wax bir li man banaw bi na araf yàlla maa ngi lay ñaan nga jéggal ñi nga xam ne ñoo doon ta ñoo doon tabax sama tabax bu yëkkati ko bu mooy jumaa ji wax bir li man amarahum bii jame nga jéggalaale ñi nga xam ne ñoo leen ko digal wala jamia man aanahum ala nga jéggal ñi nga xam ne ñoo leen ko digal wala jamia ana binaa alladi bi fadlika taala mooy tabax bi nga xam ne yow yàlla mi ngi eggee sa ngëneel sa mm. ngëneel googu nag boo jëlee ba baa gi ak kaaf gi jël faa gi ak daat gi ak lam gi day jox fàllum bi mbàkkeel la lay <laughs> loolu dafa leer dafa leer nañ kon daal bisam mi ngi noonu di bisu jullit ñëpp di bisu islam bépp na ko ñëpp ma bokk waajal xam ni bis la boo xam ni lu ci waay ñaan lu ci waay fas di ko ci am niñ koy waa waajale nag nenn la waajal ko ci alxuraan waajal ko ci ay xasida ku munta jàng alxuraan nga jël sa xaalis woo ab daara ba mu ñëw nga nga nga jox ko ñu jàngale la ko tey di jàll ak message ci réew mépp xanaa fa lay daan sama sama ay kàddu ñu gën a xam ñu jàngiwaat sëñ Tuuba ndax liy fëkkee liy fëkkee bari na ci ci réew mi nañu gën a jàngiwaat sëñ Tuuba gën a jàngiwaat suñu diine moo ñu musal ndax man mii di wax ak yéen su ma jàngutoon sama diine kon du ngeen ma gisati may woote ak murit ndax am na ci ñoo xam ne ñu ngi ci réew mi di fëkkaate fëkk nañ ma wa wax nañoo ma man ndax damaa bokk ci ab groupe boo xam ne man maa ci africain maa ci africain bi ma bi ma waxee ak ñoom di waxtaan ñoom di waxtaan ñoom dafa am koo xam ne dafa jékki-jékki daan ne ma yéen murid yépp ci ak réer ngeen nekk yéen ahlu tasawuf sax la wax dañuy yéen tasawuf musasawuf yépp ci ak réer ngeen nekk ma ne ko looy wax nii ma ne ma ne ko lan mooy firndeel ñun ñi ci ak réer lañ nekk mën ne ma yaay kan ma ne ko loolu nga waroon njëkk in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu mooy nit ki boo xamul da ngay laaj ñu wax la ma ne ko ana min min min durriyati Cheikh Ahmad Bamba maa ngi bokk ci xet Sëriñ Tuubaa yi ma mu ne ma foo ko Tuubaa mu ne ma lan mooy seen mbir ma ne ko kaanu isal laylu arxa si da saa xalakin qaamu shiraan li ihyaa dujun naati mooy bu guddi gi ñëwee suñu sëriñ ya ci Tuubaa seen mbir mooy bu bu guddi gi ñëwee buy nit ñi njëkkante ci lal yu nooy ñoom ñu njëkkante ci sijaada yi ma ne ko baaxoon fudulan bi fan xaaliqihim fannawma fi layli baaxoon bil munaajaati ñoom dañoo jaay seen caaxaan yëpp jënde ko ak dayale seen seen ay seen ay borom ma ne ko Tuubaa de am na ay soxna seeni soxna leew leen doom waaye bu guddi gi ñu ñëwee taj fu almadaaja fii layli junubuhumu naa naasina salma wala la bil bu saaraat mm-hmm. dañuy dañuy yërale seeni i wet ak ci seen tëdduwaay waaye fàtte seen soxna ngir seen borom mi nga xam ne moom moo leen bind. mën na ko yéen naar yi ni ngeen di def di waxtaane aw jigéen ñun suñu ay kilifa seen borom la ñu waxtaane xadiisuhum <sighs> dikru muxnin naafian samadin la dikru hindiw walub naa fil maqaalaati mën mm-hmm. na ko seen waxtaan yépp mooy yàlla seen borom mën na ko boo ñëwee suñu dëkk Touba. kenn du fa naan sàngar mba mbaam xoox moom mënoo dox bu biir tubaab ba jàpp ma ne ko suñu jigéen dañuy móoru duñ fa fecc duñ fa tëgg ma ne ko suñu jumaa ji nga xam ne ñoo ko tabaxal suñu alali bopp kenn financé wuñu ko ñoo ko dajale te Afrique soo jënd gépp moom moo ji ëpp ma xam ne ko ne ko sëñ Tuubaa mi nga xam ne moom lañ àndal mu ñuy nàmpatalal ci meenum Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma xamal ko ne ko mu ëpp lu mu jël ay xalima moo xam lu mbind mu tàmbalee ndeyjoor jëm jëm ca càmmooñ wala mu tàmbalee càmmooñ jëm ndeyjoor lim bind ci ay taalif amul benn naar wala benn tubaab wala kenn ku ko mos a wax sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma ne ko ak njabootam gim am cheikh Mouhamadul Fadil cheikh Mouhamadul Moustapha Mouhamadou Al Yadali mbooleem njabootam gépp Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la leen tudde maanaam jumlatu maali wa midaadi wal qalam hadiyatun lil Mustafa baabi ndax ma xamal ko ne ko kii mooy Cheikh Ahmad Bamba keroog dafa firiwaat tàmbale intéressé wu ci njàngale Sëñ Tuubaa waaye tey lii seen pexe mooy ñoom waa réew mépp laa koy xamal lii seen pexe mooy ñoo ñuy wax ay wahaabi yi ñuy wax ne ibaadu rahman nga xam ne arxaan lu ko tudd mu important nga xam ne doomu aadama bi murit bi balaa nekk balaa nekk murit day nekk ibaadu day nekk ab ibaadu ba noppi soog di mën a nekk murid nga xam ne ku dugg ci islaam di pratique islaam nekk ibaadu waaye lay tax nga nekk murid nag moom ay mooy nomm nag jëm yàlla ji mooy da ngay dem léegi nag fas yéene yëg jëm sa borom waaye nag ñu xam bu baax ni nañ gëstu ju sëñ bi mooy tax ñu mën fee toog waaye buñ ko gëstu juut ay gone yu xoq cur dañu këf ngir alal ndax man su ma bëggoon alal dugg naa seen biir. woo nañ ma wax nañu man ci waxin mu ne nee nañ ma ak réel su ma ci àndoon nag wala ma may leen ay bunt jox nañ ma alal yu bari waaye man sëñ Tuubaa ma gënal lépp loo mën a am ndax damaa jàng nag ma ma xam li ma sëñ Tuubaa defal waaye man mënoon naa ko xam ba noppi nag jikkoy bëgg xaalis dugg ma ak caay-caay tax ma bàyyi sëñ Tuubaa di wuti ay naar ngir ngir ngir alali àddina loolu bu ko kenn jaral te réew mi réew réewum suñu mag ñu baax ni la loolu lu mat a bàyyi xel la. ñu mag ñu baax ni dañ fee jëf diina ju leer nañ ngirum Maalik ñu nekk ci nekk ci ah, ah, sunnas mu Moustapha sallallahu alayhi wa sallam sëñ Tuubaa bu muy sanc dëkkam bee da koo sanc sunnas Moustapha sallallahu alayhi wa sallam loolu ñu bàyyi ko xel suñu senes bi bañ topp ni ñuy woowee ay wahabe nga xam ne seen yitte jëpp mooy dem ci naar yi naan leen suñuy am na ci koo xam ne sax daf bind ab téere daan ne suñuy suñuy suñuy góor ci Afrique ñoom jigéen moom nu mu jigéenoo rek mën nañ ko jariñoo seen yaay yeeg seen bàyyi seen seen seen seen rakk yeeg seen ñëpp ngir bëgg alal loolu dara àdduna jaru lañ lay njëkk wax mooy propagande bu metti lañ lay woo ci ci lay woo ak julli ay nangam ay nangam julli mooy ponkub islaam sëñ Tuubaa la tax mu tabax jumaa ju toll nee lu ko waral mooy bëgg murid di julli li tax mu dem ba ci digg géej ga tubaab yi ne ko boo jullee toññ mu cëppeelu ci géej gi ana lu ko waral bëgg ñuy jullee tax waaye ku jàngut ba benn waaye nag di leen koromp ci wet gi loolu ñoo xam suñu réew mi nañ ko sécuriser nañ xam réew man lañ amee réewum Sëñ Tuubaa lañ am mu Alaaji Maal lañ am réew suñu suñu mag ñu baax ñu am kenn gën leen woon dégg diine loolu gouvernement war na ko xam njiit yi fi nekk war nañ koo xam ñu ñu sécuriser suñu ak njaboot am na nag ñuy këf ñoo xam dañu ruur tey jaral leen lu ne man nañoo ñu sax sukkal la si sa seen sa kanam nga jàpp ni ñu baax lañ fekk na ay ñu bon lañ ñoo xam ni dara ñoru leen lu muy sànq diine islam te bu ñu koy sànq nag duñu ah duñu duñ ñëw naan la man may diw de dañuy woote woo islam ju set wicc boo waxee alhamdulilahi rabbil alamin ñu ne alhamdulilahi rabbil alamin gën laa set ab tari fekk na yow diine islam nekkul seen xol lenn moo nekk seen xol laver mémoire sénégalais yi jël lañ bëgg def ko ci loolu lu ñun war nañ ko bàyyi xel bu baax jàngal suñu ak njaboot ya yar leen jàngal seen diine loolu nañ ci bàyyi xel xam ni amul lu war a mën a jiitu suñu njaboot mooy jàngal leen diine kon sant naa bu baax a baax dina woo ci bis bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ma dellu jaajooti seex fàllooti yoo ki wayam bur yàlla yokku nu ay xéewal fa yàllaaw ma dellu jaajooti seex fàllooti yoo ki wayam bur yàlla yokku nu ay xéewal fa yàllaaw xarbaaxi yoon leen karaa may law li yaay la nu rool janaab ñoo nu ay xiiru yàllaaw mbiram ya ëpp na ak ak wilaaya ma la ko wax xar baa xinjool màkka la rango fa yàllaaw ajam nga daa jëli woon mbootum muhammadina ak doole jaag mujisaat yàgg may yàllaawu amoon na ci muxtisaatam waa ji ñëw di ko ñaan Cheikh Fallou may ko mu woomal fa yàllaawu amoon na ci muxtisaatam waa di ñëw di ko ñaan Cheikh Fallu may ko mu dem woomal fa yàllaaw amoon na ci mox ci saatam dof ju nu Fallu ñaan ca mu wér bay bàkku yàllaaw nix ma Cheikh Fallu Seex Fallu laay baay Seex Murtada ak Maamunu laay nix ma Seex Fallu Seex Fallu baay Seex Abdul Karim karim laay nix Seex Fallu ana sa Seex Fallu maami Seex Moodu Idaani alaaji Fallu laay nix Seex Fallu Seex Fallu yow de dem nga ba maka waaw lay neex ma seex fallu seex fallu lay yaa tudde lamp faal abori jaalu lay neex ma seex fallu ana sa seex fallu lay man de bëgg naa ku bëgg seexoo alaaji fallu lay